cheikh bi kii nee na ay doomam yeesa bu ñu toll ci benn période bi dañuy euh, maam bu ñuy feeñal dañuy dañuy sonn lool daal seen yaram bi di tàng ak yu demee noonu nee nag bu boobaa moom li mu daa def rek day yóbbu hôpital mais nee na dafa am ku ni ko su ngeen soo jëlee bëtu mbott euh, xooj ko def ko xawma lan fexe maam ñu naan ci bu boobaa ci saa si day day sedd ni ñuy feeñale duñ ko sax yëg muy laaj yu demee noonu lu ciy taxawaayu lislaam alhamdulilah xooj bëtu mbott di ko def ci am ndox di jox gone loolu musiba la ëpp naa xalaat xeet yooyu ñu lay wax yépp naan la deru bukki baag sellub till gaag deru gayndeeg yooyu yépp ay waxi laxas la yoo xam ne dugal nit ñi ci ak njabar rekk la yi nit ñi fajoo mi ngi fi simple lool xale bu toll ci feeñal kooku du doomam ji rek la waaye bépp gone goo xam ne daa toll ci feeñal ba ñuy tàmbali sax aw yaramam day tàng muy am jafe-jafe yu mel noonu docteur yi ñu ngi yore ay siro yu simple yoo xam ne dafay wàcce tàngoor bi ba noppi dafay gaaw a saxal bëñ yi yóbbul xale bi ci hôpital bi ñu jox la garab goo xam ne moo koy faj nga dem faj sa doom bul dugg ci di xooj ay bëti mbott di jox gone muy naan naar ritaali biiram mën na ci dawee mu teggee ci jële ci feebar boo xam ne kenn xamul fu ñu koy faje ci ci àdduna nit ñi dañu yëkkati seen bopp àgg ci nekk ay doomu aadama yu yu yem ak doomu aadama yi ci àdduna yii ngay dégg ñu koy wax ci Afrique naan la bëti mbott ak ay selli till ak bëti till ak bëti muus ak bëti kund ak xeet yooyu fii dong ngay dégg nit ñi di ko wax àdduna ñi ngi dund ñi ngi régler seen i problème ñi ngi faj seeni feebar demal ca tubaab yi demal ca naaree xeet yi mel noonu doo ko fi dégg kenn di ko wax te ñu ngay faju di dem kon nag faw ñu jiima yéegi seen bopp ngir ñu nekk aw xeet woo xam ne xeet wu civilisé la wu tolloo ak jamono la wëlbatiku doon xeet woo xam ne danañ mën a dund seen diine lislaam ji nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu li ñuy sikk sàkk njabar la wala bokkaale la lislaam dalay wax yëkkatil sa loxo ca loola wallahu taala alam